Binta jàlloo dafa wax ne moom dañ ko mettre au frigo te ki ko def mooy Bouba Ndour te moom luñ koy reproché mooy dafa demoon ci beneen plateau bu bokkul ak bu groupe GFM mu fay attaqué Ousmane Sonko nee na loolu koy euh, Bouba Ndour di reproché ba tax mu mettre ko au frigo ba defatul euh, soir d'info mu teg ci ne Ndour mom en tant que directeur programme nga xamné un groupe yépp lay représenté tout un groupe moy groupe JFM. mom bu togué jàkkaarloo chaque vendredi il défend Ousmane Sonko et son parti PASTEF mom non la ko interprété mais Binta Diallo da nga def erreur ñun dañuy reprocher nan ñu képp contre Ousmane Sonko. dañ lay attaqué ay bëgguñ koo xam ne day critiqué Ousmane Sonko loolu yëpp ñun ñu koy wax naan ñu ay pensée unique loolu yëpp ñun ñu koy wax waaye mbir yi demeewul noonu gis nga politique niñ ko xamee woon bu njëkk ba depuis temps yi Senghor ba ci Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wade ñëw maanaam ñun xamuñ woon di attaqué nit personnellement quoi di dugg ci vie privée nit kenn waxul nañ ñi pay ànd ak moom Yalla sax ñepp andu ñok mom yalla xamal nako bopam ba wax ne fa shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur kum neex nga gem kum neex nga wetti yonent yi timit ken amu ci unanimité nekul dañ leen di gem ñom ñepp kon Ousmane Sonko manul am ñepp bëgg ko ñepp d'accord ak mom même lu mu indi lu mu baax baax baax dina am ño xamne ne duñ contre jëm Ousmane Sonko mais duñ and ak mom duñ bokk ak moom gis-gis man mënta ñak ci aduna waye dañ ko yamalé dans le cadre euh, de la politique quoi manam programme Ousmane Sonko sa façon de parler sa façon de faire la politique sous le neexee nga ne man ànduma ci quoi suñ invité en tant que chroniqueur ou journaliste analyste man nga la façon bu fait la politique mais jarul ngay dem di ci dugal loo xam ne ci te Binta Diallo yow tu es allé trop loin maanaam yow da nga dem ba tuumaal Ousmane Sonko ça n'a rien à voir avec le journalisme ça n'a rien à voir avec ce qu'on ne dafay analyser té lolu kenn jangalu la école wa CESTI duñ ko jangalé wa ISIC duñ ko jangalé wa ISEC duñ ko jangalé amul ben école journalisme ci aduna bi muy France ak États-Unis partout dans le monde fu jangalé né bu accident di am dang ko wara a ben opposant ne parce que fay organiser ay concert de casserole wala fay wax ay nitam sol leen ay yere yu xonko lolu manam c'est c'est trop dafa ëpp te yow toujours boy wax ci Ousmane Sonko dañuy sentir ben haine viscérale bo am envers cette personne te jaru ko nit ki mën na la bañ neex yow mais fexel ba ce ce ce sa métier bi du journalisme nga djema dawal lu ñuy wax impartialité di équilibré ba pare respecter li nga xam ne moom déontologie bi parce que attaque personnelle wala nga am règlement de compte sa diggante ak nit mais jarul nga koy wane yow ci sa liggéey parce que da nga wara am professionnalisme sa liggéey waro ci leble waro ci fay bor so joteeg nit sax warul feeñ yow ci sa liggéey da nga wara teddé tëddee njaaxaanaay mais Sénégal ngay gis ay journalistes yo xamanteni dañuy jël position contre Ousmane Sonko amna na ñoo xam dañu am problème ego ak Ousmane Sonko li yalla may Ousmane Sonko aura bu mu am notoriété bu mu am dañu naan pourquoi Ousmane Sonko di am li dañ ko koy iñaanee en personne am ñoo xam ne nag ay mercenaires lañ dañ leen a jël xam nga Macky Sall moom moo waa këram politique bu ñuy def dafa salte ñoom seen politique amul ay argument yeeg yooyu ñoom justice saaga gendarmerie police tëj dóor ray xaste fen sos xam nga ñoom loolu lañ xam léegi nag comme <laughs> métier bi moom ne nourrit pas son homme au Sénégal mooy journalisme bi maanaam yow da ngay am euh, maanaam passion bi di ko def mais nekkul ne xaalis moo la ciy dugal xam mais am na ñoo xam ne dañuy bëgg confort bëgg luxe bëgg ay avantages ay privilèges te métier bi mënuñ cee am loolu te comme Macky Sall moom day soxla ay waxkat koo xam ne dafa influent soxla ay borom comme Serigne si soxla ay communicateur traditionnel xam nga léegi noonu lay soxlaa journaliste yo xam ne dañ koy jàppale ci xeex bi muy xeex Ousmane Sonko moom xeex bi muy xeex Ousmane Sonko dafa dem jëli ay nit yoo xam ci. nit ay nit ñu siiw lañ ñu am tur ay mbërëg ay wéykat fu nekk rek entité bu nekk daf fay dem uuti ji kenn rawatina ak la presse pour ñu jàppale ko moom ci combat yam contre Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moom uutiwul kenn ku ko jàppale moom sénégalais yi rawatina ak la jeunesse dañ ko bëgg naturellement te joxu leen xaalis joxu leen dara léegi nag gis nga àdduna lu ci gën a noppale mooy yàlla lu mu may nit ki nangu ko après nga noppalu am na leneen lu ci am tamit. lu tax ñu gën a jàppal Ousmane Sonko en mooy euh, dañuy invité Ousmane Sonko Ousmane Sonko préféré woon pour dem ci plateau yi moom il préféré di def ses déclaration à travers les réseaux sociaux bañ tuddee woon ko sax candidat réseaux sociaux yi moom doole bi mu am yëpp ci réseaux sociaux yi la ko amee. am nga mais biñ te jàll da wane en sa diggante ak Ousmane Sonko toog nga fii naan Ousmane Sonko dañ ko war a tëj xam nga parce que ñu ngi fi àtte ñëpp tribunal bu dogalee dañoo war a exécuter. li tribunal dogal te yow xolo injustice yi ñuy teg Ousmane Sonko yow so xol Ousmane Sonko acharnement judiciaire biñ koy tek nga ne xaaral ma dénoncé ko mais Bouba Ndour bi ngay accusé da fay défendre Ousmane Sonko Bouba Ndour il dit que la vérité man je ne défends pas Bouba Ndour man je suis pas l'avocat de Bouba Ndour xam nga des fois man n'a baña d'accord ak mom ci yenn analyse mais mom objectivité lay analyser fay gis ne kat li mo am. nekkul nu demee noonu mais nekkul ne Ousmane Sonko lay défendre Sénégal dañoo dem ba tey yow booy wax dëgg rek dañ naan kii il défend Ousmane Sonko kon dafa mel kon Ousmane Sonko moom moo nekk ci dëgg yow daal yàgg sa naataango boobu Aïssatou Diop Fall en bi ngeen am ci Ousmane Sonko dafa ëpp te nëbbu leen ko Aïssatou Diop Fall toog ne fii en direct ne moom du invité waa Pastef di attaqué Ousmane Sonko suba ngoon guddeeg bëccëg dem collaborer ak noonu Ousmane Sonko yi te pour man àdduna yenn yi ko Ousmane Sonko liko yàlla may may nako ba pare te yéen mënu leen fexe ba lolu yàlla dindi ko parce que yàlla mo ne zalika fadlullah yuti man yasha wallahu zul fadlul azim da ngeen di nangul li yàlla may Ousmane Sonko su ko defee du ngeen sonu nit nak non la wara mel da ngay nangul li yàlla may nit ñi su ko defee doo sonn doo jaxle yàlla euh moy xol ko neex mu def ci nit kooku li ko neex olof njaay ne ku nangul lu yàlla dogal do sonu sa xol lu jeex waye ku bañ lu yàlla dogal di nga sonu di nga jaxle loolu mo sonal wa Sénégal yu bari ñi xex Ousmane Sonko diko xex bam dugg kasso ñu continuer fenal di tirer ci parce que dañ ko dañu japon ne ko pas. Les nit ñi faté ko ne parrainage bi bu désigner kenn nit ñi mu désigner affaire bi am engouement am ampleur xam nga ba il continue di tirer ci Ousmane Sonko di nit ñu utiliser contre une personne bo xam joté jotee mom dara te yow Ousmane Sonko dara wax deug yalla critiquer tay ci programme ci comportement am ñun danañ nangu mais accident yu am nga Ousmane Sonko mo fi euh, concert de casserole nit ñi sol xonk Ousmane Sonko mo nit ñi lu xonk motax accident yi di continuer di mais c'est trop dafa upp aduna bimu ba accident day am continuer di Sénégal tali yu bon ak ay chauffeurs loolu moo fa am ak corruption loolu journaliste bi loolu la war a wax te loolu ay fait la yu nit ñi teg seen bët journaliste noonu lay analyser mais pas ngay attaquer nit ki en personne quoi jaru ko